kàddu gi nag yaakaar naa kàddu yu gàtt rek lay doon kàddu yuñ tënk lay doon tàmbali bi ba fa muy yam mooy wane mbégte ak kontaante ci activité bi nga xam ne nii moom lañuy def ci barab bii yaakaar naa ne suñuy waa wootee ci wàllu njàng ak njàngale ñu indi ko fii ci keppaaru maam Cheikh Anta kenn du laaj lu tax ñu ko fi andi Euh, mu mel na nag daara ak lépp loo xam ne ni daf caa aju bari na ay jaar jaar yoo xam ne ni jaar na ca ci digganteem ak état ndax xam nañ ne colon yi bi ñu fi nekkee am na noo xam ne nii noom lañ doon jëflanteeg daara moo tax bañ demee ba wane gannaaw mel na ne am na jeexital yoo xam ne ni ak ndono loo xam ne ni bàyyi nañ ko gannaaw ñu yaakaar ne ñi nga xam ne nii ñoo leen fa toogal toogal ca la ñuy wéy looloo tax kon mel na ne diggante daara ak état amoon na aw dig dig woo xam ne ni tamit ku nekk ci ñun xam na la ko waral waaye loolu jamono di dox ba nga xam ne nii gis nañ ne secteur yëpp. ku ci nekk da ngay jug di revendiquer ngir jot sa àq waaye mu mel ne état moom ci boppam moo dem ba xam ne mënumaa dem dox ci wàllu e-, éducation te dugaluma daara kon loolu dañuy gis ne daara moom rek mooy secteur bi nga xam ne ni moo am loolu nga xam ne ni état ci boppam moo ko tàllal loxoom su ko defee nag kon loolu mel na ne jëflante bi nga xam ne nii moom la état di jëflante ak daara mbir la moo xam ne nii lu war a am la ndax comme dañoo wax éducation national njàng buñ ko waxee waxuñ ne tubaab la ñuy jàng waxuñ ne anglais la ñuy jàng waxuñ ne arabe lañuy ñuy jàng waaye njàngam réew mi la njàngam réew mi nag yaakaar naa suñ ko waxee fii ci Sénégal kenn mënu caa jiital lenn lu dul alxuraan ak la ci ajo kon moo tax yëf bu Mbàkke tamit maanaam politique bi nga xam ne ne état senegal moom la dégagé te lenn jiituwu ca njàngam alxuraan mi nga xam ne nii leer na ko ne senegal moom lañu bëgg ndax kat état bi mu fekkoon tamit dafa am yeneen jëm-jëm ci wàllu njàng yoo xam ne nii xëy na dafa nasaxal alxuraan ak la ci aju kon yaakaar naa ne réew mi ci boppam ñooy taxaw jaamaarloo ak moom ndax alxuraan moom mooy li nga xam ne nii saa yu ñu ko tuddee bépp Sénégal boo sénégalais boo gis day jàpp ne am na ci wàll loolu nag kon ndaje yi mel nii ak yi nga xam ne nii moom lañuy nos ngir di taxawu daara loolu dafay wal ne ñun xaaruñu état bu defee ñi ngi def bu deful ñi ngi def kon bu fekkente ne bii soxna yi nga xam ne nii yàgg nañoo fegoo ak daara yàgg dañoo ànd ak daara di ko jàppale dañoo dem ba jamono dox ñu xam ne liggéey bu nekk dañ ko war a nose dañ ko war a organiser ñu sos loo xam ne nii képp koo xam ne nii jug nga ngir dugal sa loxo ci daara boo jaaree ci ñoom da lay wóor ne la nga teg seen loxo dana àgg ci ñoom kon loolu lu am solo loo xam ne ni ñëpp ci war jàpp kon nag yaakaar naa ne comme dañ koy taxawal fépp te soxna maam Anta mi nga xam ne nii moom lañ fekk si tey fii ci gox bii yaakaar naa ne liñ dégg ci moom gis ko ci moom mu jëmmal ko ci wàllu taxawu daara bu wootee ñëpp war a ñëw kon soxna si ñu ngi leen di xamal ne inspection bu bu Mbacké ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax nekk ci seen wet lépp loo xam ne nii yeneen koy dox ba àgg ci foo xam ne nii dangeen a jàpp ne war nañ caa jàpp ñu ngi leen di tàllal loxo xam ne guddeeg bëccëg yéen lañ fa nekkal ñu jàppalante ndax lii nga xam ne nii mooy daara xemmemteefu askan wi la bëggeelu askan wi la képp koo xam nga ni dox nga ngir taxawal njàng moo xam ne nii askanu senegal danañ ko danañ ko nangu mënoo caa ñàkk boole alxuraan ak waa daara loolu nag kon dafay mel ne li nga xam ne nii mooy jëflante bi tàmbule na tàmbuleen woo xam ne nii ñu ngi ci tàmbulee gis lëkkaloo bi nga xam ne nii éducation nationale lëkkaloo na ko daara gis nañ ne am na ay action yu bëree bëree bëri yoo xam ne ñu koy taxawal te boobu ba léegi gis nañ ne njariñu daara lañ ca gis ndax daara mooy euh, maanaam structure boo xam ne nii ña nekk am nañ fullay képp koo xam ne nii ñi ngay jëflante ak yow saa yuñ gisee loo xam ne nii day yàq lañ nekk ñu taxaw kon loolu tamit état bi bàyyi na ko xel bu baax a baax kon daal ngir gën a euh, bañ a guddal dañuy sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di leen xamal ne inspection bu Mbàkke daal li nga xam ne nii moom nañ teg ci ndo ndoddam ngir mu saytu njàng fii ci département bi jiite ci jiitalu ca lenn lu dul alxuraan ndax xam nañ ne euh, Sénégal yépp alxuraan lañ bëgg waaye rawatina nag département Mbacké bi nga xam ne nii boo ko tuddee tudd nga Touba tudd nga Darou Salaam tudd nga ay gox yoo xam ne nii ñoom ñëpp seen cosaan ak seen bëgg-bëgg mooy alxuraan kon loolu xam nañ ne bàyyi nañ ko xel bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax. di leen xamal ne ñu ngi ànd ak yéen liggéey bi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nu ngi leen di nuyu kenn ku ne turam ak santam si mbooloo mu fi toog yépp di tuub di jéggalu kàddu yi ñu yëkkati si kanamu kilifa yi waaye kàddu yi day kàddu yi soxna ma Anta Dia ñu di ko ko yëkkati rek di ñaan ci yàlla nam ko bëggee yàlla nan ko ni mën a jotalee waaye muy dalal ay ganam rek ci gàttal mu ngi dalal gan yi nga xam ne banqaas baa ngi jóge ci fédération nationale des écoles coraniques ànd ko ndey daara yi nga xamante ne ñu ngi ci national diaspora ki ci bopp bi di soxna Astou Ba Mame Diarra di suñu coordinatrice nationale macha allah ak diaspora jóge ba Fatick ak délégation bu am maanaa bu mu àndal ñu ngi leen di dalal ci jàmm ci Daaru Salaam mu ànde ko ajaratu faatu bintu Mbaye di présidente régionale da jurbel ànd ko ak délégation bu mët sëkk waaye fekk fi soxna ma ma Jaxate jaxate ba yéri di présidente département ànd ak délégation bu mat sëkk soxna ma Anta nee na mi ngi leen di dalal si Daaru Salaam waaye nag di dalal mbokk yi nga xamante ne ñooy meenam waaye ñooy deretam waaye ñooy mbokk ndey daara yi mu àndal ci liggéey bi depuis 2019 foog naa xanaa dañuy doog a formaliser ndax association boo ci bokkee bu nu nee lii dañ ko tuddee monte cellule mu deme nii kon xam nañ ne soxna ma Anta lu la waxal yow la macha allah ñun nag dañu naan Alaaji Abdoulaye Ja xadimul alxuraan mooy bàyyi daara waaye mën nañoo jàpp ne soxna ma Anta ja mooy yaayu daara kon kàddu yim ne woon nañ leen ko ko jotaleel ci nuyoo ak sant ñi ci des di sama ay kilifa dinañ ci yegg. ci liñ bëgg a yegg ak liggéey bi na mu war a bindoo danañ ca yegg waaye sant na yàlla alhamdulilah sant ay waajuram sant ay sëriñam di ziyaare sëriñ daara bu fi taxaw ndax kat ñun dongab daara lañuy liggéeyal doon seen ndey waaye nag tubaarkàlla dongab daara bàyyi daara yi ak sëriñ daara yi lañ ko àndal maa ngi jéggaluwaat lu ci gàtt si man la su lu matut tamit si man la maa ngi tuub di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Ah, di am mbégte mu rëy nag ci jël kàddu gi ci turu département bi yëpp ah, di wax rek ne suñuy kàddu ci ñaari tomb rek lañ koy féetale bi ci jiitu rekk doolee soññ suñu bopp soññ mbooleem ndey daara yëpp di xam ne jigéen yàgg naa bay waaram ci toolub lislaam ndax suñu ko tàmbalee ba lislaam di ñëw ummahatul muminina yi nga xam ne ñoo àndoon ci wooteeb lislaam ba tàmbale ko ci sayyidatuna Xadiija na mu taxaw woon diine lislaam taxawu ko sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa ba mu yëkkati raayab lislaam muy taxawaay bu rëy ba ca sayyidatuna Aïcha ku nekk xam taxawaay bu rëy bu nga xam ne taxaw na ko ci yoonu lislaam taxaw ko ci jàng ak jàngale ak xamale diine ak solo yu bëri ki ay ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa message yu rëy ci toolub lislaam waaye ba ci ummahaatul mu'miniin yi ki des yëpp ku ah, mel ni umu salama ku mel ne ah, sumaya nga xamante ne mooy ki njëkk a taxee ci yoonu lislaam noonu la jigéen yàgg bayee waram ci toolub lislaam ba egsi ci suñu jamono yi nga xam ne kuy tudd fii ci Tuubaa rek da nga tudd mag ñu baax ñu tedd ñooñee waaye nag jiital ki soxna Anta mi nga xam ne ah mooy ki nga xam ne mooy samp booram gaawaan fii maam Cheikh Anta ah, nekkoon moom it taxawaay bu ndax ku nekk xam na ni Cheikhul Khadim mi nga xamante ni mooy suñu roykaay ñuy uh, di ko di ko safoo di ko bëggee fu nekk moom soxna Anta Ndiaye moom ku nekk xam na digganteem. ak soxna jaaratullaahi maryaama so ci def ko rek muy mbokkam ndax ñépp xam nañu la ko indi ca kër ga soxna Anta moo taxaw taxawaay bu mat sëkk boobee ba soxna jaara nekk ca kër ga ba ñu am ca méngeen mi nga xam ne mooy cheikhul xadim waaye moom it mu indi méngeen bi nga xamante ni mooy maam Cheikh Anta Mbàkke borom gaawaan noonu la doxee ci ummahatul muridina yépp ndax ku nekk gis na soxna Faati Issa Gueye taxawaay bu mag bi nga xam ne noonu la taxawoon ci Cheikhul Khadim di jël alalam di ko jox di soññ maam Thierno Birahim ci mu gën a topp Cheikhul Khadim te def ko rek moom rek mu di sëriñam taxawaay bu rëy ci yoon wi ndax dégg nañ ci ay xissa yu bëree bari yoo xam ne soxna Faati Issa taxawoo na ko Cheikhul Khadim boo ñëwee ci waa kër Cheikhul Khadim koo ci tudd rek kenn ku ci nekk ci moom soxna Awa Bousso soxna Aminata Lo soxna Mariama Jaxate koo ci tudd rek gis nga jaayante bu rëy bi mu jaayante woon ak Seexul Xadim ci wooteeb yoon wi ba mu egg fa nga xam ne fa la egg nga ñëw ci njabootam koo ci tudd soxna Maymunatul Kubra nga xam ni li mu yar ak li mu jàngale ak li mu xable lépp rek bay waaram wu rëy ci toolul Seexul Xadim bii ba ci soxna Maymuna mi nga xam ne mooy mu ndaw mi ki mujj muy soxna Maymunatu Suxra ku nekk xam liggéeyam jigéen nag dafa yàgg bay waaram ci yoonu lislaam ndax ku nekk xam ne ni démb ku déglu réew mi yëpp bala nga déglu àdduna bi yëpp di nga dégg ñuy wax journée bu ñuy wax journée de la femme muy 8 mars ñu di ci woote woote yu xumb di ko wootee ci façon bu ci nekk waaye tey ji boo duggee ci jigéenu lislaam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy jigéen di nga xam ne bis bu nekk bisam la ndax waar yu bay na ko ci waxtu wu ci nekk kon bu bis bii day ñëwee tey tolloog bis yooyu ñun dañ cee war a gën a apercevoir jigéen dëgg dëgg dëgg ak taxawaayam ci diine gi ndax kat suñu borom subhanahu wa taala mu wax ci alquran ni man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf ju baax muy góor muy jigéen danañu dundal sa dund fii ki àdduna dund bu teey te ëllëg yowmal xiyaam danañ la fay gën nga rafeti na nga ko doon jëfe kon nag jëf ju baax góor la war war jigéen ñoom ñëpp ñoo ci bokk yam waaye rawatina nag ci toolub lislaam waaye rawatina ci toolub alquranul karim ndax alquran kat suñ borom moo wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ñoo wàcce alquranul karim te ñoon ñoo koy koy wattu waaye nag watt googu nag suñu borom dafa teg doomu aadama ci suuf ngir mu wattul ko téereem bu sell boobu wattu googu nag ni mu waree góor rek noonu la waree jigéen kon nag ñun jigéen ñi ñoo nu laxasaayu di xam ne sëñ daara ba fay gu mu am ca daara ja ndey daara bi bu laxasaayoo liggéey ànd ak sëñ daara bi da ko cay am donc daara bi gu mu am ca njàng ma ak ca métitu njàng ma ak lépp fay gu mu ca am rek noonee tamit day daara bi bu la liggéey fay googu noonu la ko ci amee kon nag kàddu yi may njëkk a yëkkati daal ci ak tënk mooy kàddu soññee rek di xam ne it soxna Anta ñi koy sant bu baax a baax ci woote bu mag bii mu woote ak wuy bu rafet bi nga xamante ni ñëpp wuy si na ko di leen wax daal ndey daara mi ngi nii fóotal donga daara toggal ko jox ko mu lekk toppatoo wér-gi-yaramam toppatoo setam kon nag nañu gën a takkuwaat gën a laxsaayuwaat bu baax a baax te xam ne nii ko soxna Anta wootee bépp ndey daara boo xam ne tey jii teewee nga ko wala yoo ko na xam ne daara jëkk sa wet sa daara la foofa ngay njëkk a bàyyee sa wewu tànk bu ko ñëpp defee fii ci daaru salaam daara yëpp dinañ doon ay daara tànneef yoo xam ne ku ko xoolee xam ne lii ndey daara liggéey nañ ci liggéey bu am solo. samay kàddu nag dama koy tënk ndax ñi ci topp bu ñu ñëwee incha allah dinañu jot lii yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf soxna Marème defe naa bi nga waxee rek doyoon na waroon nañu tënk foofu sunu kàddu ñun ñëpp ndax wax ji am na solo man nag dama jël kàddu gi fii di war ne sama mbégte ak sama xol bu sedd mais di jéggulu ci li ma koy jël ci kanamu ay kilifa xëy na loolu waroonu sax waaye defe naa mbir mee demee noonu. maa ngi sant bu baax di gërëm man fu ma taxawee ci daje yi damay jëkk gërëm sëriñ daara yi man ndax yéen nu boole ci arxuraan bu daara amul woon ndey daara du am kon yéen gàcce ngaalama yéen ñi nu ci boole defe naa ku la boole ci arxuraan deseelatu la dara kon yàlla na nu leen yàlla fayal damay nuyu di sant di gërëm El Hadj Abdoulaye Dia ñun mooy sunu partenaire numéro moom moo feeñal ndey daara ndey daara Sénégal yàgg na dama ne Sénégal dama naan monde bi ndax depuis que ñoom soxna Khadija ba tey ay ndey daara lañu kon ndey daara yàgg na ci àdduna mais Ablaye Dia moo nu gëddaal Ablaye Dia moo feeñal ndey daara yi kon Ablaye Dia yàlla na ko yàlla fay di sant di gërëm wax dëgg yàlla njaga ba sama sëriñ Bousso maa ngi lay yóbbante ñu jaga ba inspecteur boo demee nga ni ko madame kat nee na dénk na la kuréel yi ndax nag yéen ay saytu njàng meeg njàngale mi te am nañ ci yéen yaakaar bu wér kon dénk nañ leen sunu kuréel yi ngeen gën ci jàpp ngeen gën ci xool ngeen gën leen boole ci ci bu ngeen di former bu ngeen di tàggat ngeen boole ci ndey daara yi ndax soxla nañu am xam-xam pour que mission bii nga xam ne yàlla jox na leen ko ñu mën ko assumer correctement maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Adja Anta ja soxna Anta yàlla na la yàlla fay yow ñëpp wax nañu ko ba nga dalee di def ci daara du tey ndaw loolu rek nga xam. kon yàlla na la yàlla fay en tout cas ñun gis nañu lépp ndax du bii lan fi jëkk ñëw defe naa nombre de fois yi nu ñëw fii xamuñu nu mu toll te heure bu nu fi mësee ñëw pour alxuraan la kon vraiment yàlla na leen yàlla fay nga ànd ak ay sëriñ yu baax nag tey jii nga wannu leen ñoom ñëpp présenté leen ñu ay sëriñ yu nekk sa wet ndax tamit wala fi nee na doole jën ndox ndey daara mënul am doole te sëriñam dooleelu ko kon bu ndey daara amee doole ci daara sëriñam a doole sëriñam a ko boole kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla sàmm leen sàmm leen seen daara yi di gërëm soxna Marème Diakhaté mais di gërëm sama président national ak international muy Adja Assouba Adja Assouba de jour comme de nuit Adja Assouba du tàyyi du bàyyi elle toujours là moom la ñuy wax les fatigables ñun ñëpp moom lañ koy woowee ndax fa muy egg duñ fa egg la muy mën mënuñu ko la muy jéem jéemuñu ko te nag lu mu dem ñëpp la ko demal kon Adja yow yàlla la fi yàlla bàyyi délégation ndey daara yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm soxna Marème wax na leen que nanu gën dëgëral dëgëral takk su sër yi ba mu dëgër bu leen découragé bu leen tàyyi kuy liggéeyal alxuraan doo tàyyi te wallaay yàlla ku ko lebal mu fay la yàlla du liggéey loo ko mu narut a fay kon lépp lu nu liggéey yàlla na ko yàlla delloo ci njaboot gi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci wax baax na ngeen xam ni rek eh, seen yéen ak seen baax la lu ci dëgg ngeen xam ni mata di doomu aadama la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam waaye di nuyu nag xalif général des mourides bu baax nga xam ne mooy bàyyi daara yu mag yi nga xamante ne tey fii ñu ñëw tey su fekkonte ne dañu ne lislaam pénc la garab la ñu ne Touba garab gu mag gi nga xamante ne moo reen yi samp ci mbooleem dëkk fii la fii lañ ko samp pénc mi kon ñuy bég bu baax tey fii ñu ñëw ci Daaru Salaam di ñaaneel yàlla sëñ bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi te wér di ñaanal sëñ Mountakha Bachir yal na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu te wér mooy bàyyi daara yi waaye di ñaanal kilifa diine yi ci Sénégal yëpp suñ borom bàyyi leen fi ndax suñu maam yi bàyyi nañ fi loo xamante ni ci réew mi loolu nga xamante ne moom la suñu bay yi fi ne donn ko feeñ na tey ci réew mi waaye feeñ na ci bitim réew di nuyu itam ki nga xamante ne mooy sëñ Abdoulaye Dia Khadimul Quran boroom bés bu màgg bii nga xam ne moom la ñuy waajal le 17 mars ca Ndakaaru te jàppoon ko le 24. waaye ñu gis ne ak jamono ji ni mu tëddee ak yi ñu jub si muy élection yi ba ñu jël bés bi gën koo jegeel mu doon le 17 mars fee ca Dakar ca Grand Théâtre ñu di ko ñaanal yàlla fi muy bugg alxuraan yi egg fa ak jàngalekati alxuraan ak ndongo daar yi yal na koy njortam ja ndax mu ngi sawarloo jàngalekat yi waaye mu ngi sawarloo jur yi ba ñu sawar di jël seeni doom di leen yóbbu ci daar yi ndax gis ngeen ne raay yu bari mu ngi dugg tey ci Sénégal concours bii nga xam ne mooy concours Sénico def na ci lu baree baree bare def na ci lu rëy rëy suñu toogee ba nga xamante ne njiiti réew yi fi jóge amul benn njiiti réew bu fi mës a def concours international bu dul le président Macky te loolu mu ngi ko royee ci ki nga xam ne mooy xaadimul Quran El Hadji lay Dia tax mu def grand prix du président de la république kon kooku ñu ngi koy ndokkeel ci bés bii ñu ñëw waaye di ndokkeel sëriñam di ndokkeel itam woy juram yi di ñaan suñu wayjur sëñ Baye Omar Dia yàlla ñu ko yàlla yóbbul ci àjjanay firdaws ak mboolem jullit ñu fa fekk waaye suñu yaay Astu Dia ñu ngi ñaan yal na fi yàgg te wér bés bii tey nag ñu di ci kontaan contentement boo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem lii nag man bettuma ci Daaru Salaam ndax ñeent fukki département yi ci Sénégal yépp samp naa ko waaye am na sax région yu ma samp te melul ni lii ma gis fii tey ci Daaru Salaam te cosaan li bii ñu sampee daaru salaam mooy ang mooy alxuraan te ku ne xam na loolu ci àddina bi ak bitim réew kon ñu ngi ndokkeel suñu rakk suñu doomi ndey di soxna maam ante ja soxna maam Anta Dia xanaa tey dañu ñëw rek officialiser li nga xamante ne noonu la ñu tëraleeg ndey daara ci réew mi nga xam ne 46 départements yi ci Sénégal yëpp am nañ fa 555 départ communes yi ci senegal foo ci dem am na daaw jéeg lañu samp Makka ca Jidda ndey bu fa ne bokkul nag ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi kon maam Anta ñu ngi lay ndokkeel ci bés bii nga xamante ne tey bés bu màgg la ci ñun di bés bu màgg ci lislaam waaye tombeek itam bés bu màgg ndax ku ne xam na ne tey la màggali Daaru Karim kon mu boole lu bëri loo xamante ne tey dafa gën a taaral bés bi waaye dafa gën a jëmmal bés bi di ñokk it ci bés boo xamante ne bési jigéen ñi la ndaxte jigéen ñi moom bés bu ne suñu bés la waaye mu tons loog 8 mars tey di 9 mars kon soxna maam Anta ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bés di ndokkeel itam présidente régionale Adja Fat Bintou Mbaye waaye maam soxna maam Anta Jaxate yaa Seyda ñu ngi lay ndokkeel ah, bu baax ci li nga xamante ne mooy sa taxawaay fii waaye di gën a nag ñaax ñi nga xamante ne ñooy ndey daara yi ndax damay wax ne ndey daara ca daara ja ndey daara moom li tax ñu naan ndey daara la mooy ngay dem ca daara ja sëriñu daara ba di la gis ndongo daara ya xàmmee ne yaay seen ndey ci ndimbal boo leen di indil ci toppatoo boo leen di toppatoo du ñu xiif du ñu mar du ñu rafle di sol ay dàll dama ne lii sama sama sama sama xeex fi mu nekk nii ci Sénégal ak bitim réew mooy ndey jigéen ju ne nekk yaay jigéen joo gis tey buntu kër gu ne ñu doon këru daara doon ndeyu daara yekk di fa jóge di dem ca daara ja waaye loolu ba tey dama ko xeeb ba bërki démb bi may tasee kilifa yi ci ministère de la femme dama leen ne dama bugg ay waañi daara yoo xam ne dañ koy saxal ci département yi ci communes yi ci région yi mu tasaaroo siiw ngeen jox ma matériel boo xamante ne dañ koy yóbbu ci daara yi ndey daara yi di togg waaye ndimbal yi di ñëw ñu mun di toggal jigéen ñi xale yi di jigéen ñi toggal ndongo yi ñu lekk ndax ku roy ci borom bés bii nga xam ne moom la ñu tudd moom sëñ Ablaye Jat tànn tudde ko tari bi muy sëñ Saaliw Mbàkke yal na yàlla yokk leeram nga xamante ne daara ku roy ci moom Sénégal ndongo daara du taxawaalu ndax képp koo xamante ne gis nga daara yi mu samp ndongo daara yi dañuy añ dañuy reer ba suur dañuy sangu dañuy set te loolu yëpp ndimbali yàlla ak bëgg daaraam moo tax sëñ Saliou Mbacké def ko ku dem xel koom ñun ba ñuy gor xel koom la dem xel koom gis la fa ne kon nag roy bi ñuy roy ñun jarul ñuy uti feneen ndax am nañ ñu ñu roy bu dee ay jigéen soxna jaareetulaa Mariama Bousso miñ may dàkkantale doy na sëkk ti ndey daara ndax ku ne xam na ni mu taxawee maam astawaalo naawel ku ne xam na ne tey jii ku dem naawel xam ne ku liggéeyalul lislaam doo mel nii kon ñun xaadimu rasool suñu sang bu tedd boobu ni mu mel bettuñu ndax fa mu jógee fa mu soqe koo nii rek la mun a mel kon ci gàttal may ñaax ndey daara yi kenn ku ci ne na nga am ndongo daara ndongo daara ba na set ndongo daara ba na odd am yëre yu baax yoo xamante ne tey jii ñii ñuy gis ñu di leen yóbbu ci école yi di téye seen loxo di leen jox saak ñii nga xamante ne ñu ngi ci daara yi Sénégal bu tolloo tey fii am jàmm li xew ci yeneen réew yi xewu fi ak yëngu-yëngu yi fi am te lépp mujj ci jàmm daara yi tax ndax suñu borom rus na ndongo daara yi nga xam ne saa bu ñu xëyee ñu ngi ci alxuraan ji saa bu ñu gontee ñu ngi ci alxuraan bi guddi ñu ngi ci alxuraan yi ñooñu la ñu yàlla ruse ba liy am ci yeneen réew yi amuñu fii kon nag lépp lu ñuy jàpp jàpp daara ji ba mu mel na mu war a mel loolu lañ bëgg ma bëgg nag. ku jàpp ñun nañu jàpp ku jàppul ñun nañu jàpp ba ñu xam ne jigéen lépp lu mu sumb te bëgg ko loola dina jëm kanam dañu bugg suñu ndongo daara yi di sol yére yu rafet di sol dàll yu baax di mun a jàng di lekk ba suur ñu di leen fekk ci daara yi benn yaay bu ne na jënd mat laa yóbbul ko doomam ndey daara bu ci ne na am bool boo xamante ne mooy booli doomam mu di ko yóbbu ca daara ja xale yi bu ñu xiif bu ñu mar bu ñu rafle waaye di sant sëriñi daara yi ndax sëriñi daara yi dañu def ci daara yi loo xamante ne bu dul loon ñoom lu seen i jur mënut a def ci ñoom ñoom la sëriñi daara yi def ci daara yi kon ñu ngi sant sëriñi daara yi di leen ñaanal yàlla di sant bu baax maam Anta Dia ndax machine yii dama am fu ma ko waxee ne dama bugg ay machines yu wër ci Sénégal ndax xam nga ne jigéen yu bëri fóot seen kaala sax mënatuñ ko kon ñuy ñaan kilifa yi ñu dimbali ñu ci ay machine yoo xam ne day fóot dimbale ñu ci ay waañi daara dimbale ñu ci fu daara taalibe yi di tëdd waaye dimbali ñu ci ay mbaar yu mucc ayib yoo xam ne fa la sëriñi daara yi di jàngalee ba nga xamante ne seen coono dina mun a wàññeeku ndax kat xayrikum ji ñu wax moom yàlla la ñu nekkal ba sëriñi daara nee naa leen fonctionnaire yàlla la sar sa leeram du tardé te incha allahu taala day feyeeku ba yàlla def jàmm doomam donn ko wala ñeneen donn ko waaye sëriñi daara moom du mus a sonn ndax ku dëkkook yàlla moom yàllaa lay yorel sa lépp kon maa ngi sant ñëpp di gërëm nag ndey daara daaru salaam ndax nii ngeen ñëwee uy si tey soxna maam Anta wax dëgg yàlla kontaan naa ci ni ndey daara tuubaa ñëwee uy si ndey daara Mbàkke ñëw ndey daara Jurbel ñëw dama ci kontaan ba nga xamante ne nit buy liggéey ñëpp dañu war a xam ne kii dafay liggéey ndax jërëjëf kat du yokk doole mais dina sawarloo di sant sëriñi daara yi ak kilifa yi bu baax a baax di sàkku ci ñoom ñaan ba yéene ji ñu am ci daara alxuraan ci Sénégal ñëpp di ñu roy ne ndey daara Sénégal nañu taxawee ca ndongo daara moo tax gisatuñu benn ndongo daara di taxawaalu waaye gisatuñu benn ndongo daara rafle gisatuñu benn ndongo daara xiif asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di kontaan lool bëgg lool di sant ñëpp e, cant googu nag suñu ci jiitalee soxna maam Anta Dia e, ci taxawaay bu rafet bi ak yéen a ju rëy ji ci daaru salaam ak daara yi daaru salaam yi. wax dëgg ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant ganam yi nga xam ne ñoom la am tey jii woo Daaru Salaam gépp ngir ñu teewee seeni jataay e, di gan ñoo xam ne gan ñu màgg lañ di gani ndey daara yi su ma ci tuddee soxna Astou Ba di koo xam ne xam naa ko bu baax a baax a baax ci liggéeyub alxuraan bi xam naa ko bu baax a baax a baax ci liggéeyub daara muy kudul sonn gaynde la ci goo xam ne du sonn te yàgg na ci loolit nag waaw loolu du loo xam ne tey jii wala démb ay at a ngi nii ma xam ko ci liggéey boobu te mosu soo ko soo saa yoo ko gëjee gisee soo ko gisee même engagement bi mu yoroon rek moom la yor ba léegi yàlla na ko yàlla fay aw yiw mu ñëw tey jii eh, nekk ganuk soxna maam Anta ñu ànd liggéey bi soxna maam Anta it wax dëgg ñun waa Darou Salaam gépp mën nañoo seere taxawaayam yu rafet ci daara taxawaayam yu rafet ci yeneen causes yi sociales yépp sax même su dul daara di ko sant bu baax di sant sunu kilifa yi dëkk bi nga xam ne ñoo ñu jàppandal lii te ñu baree bare bari tey ñëw nañ fi tey jii waaw daanaka su fekkee ne ki sëriñ bi ji yónni te muy sëriñ Abo mi nga xam ne mooy sunu kilifa mooy kilifa dëkk bi di sunu baay di sunu sëriñ yebale na fi imaam dëkk bi sëriñ Cheikh Abdou Khader ñëwal na boppam ñooñu rek dañuy symboliser Daaru Salaam gépp ak yeneen kilifa yi fi ñëw yëpp suñu am ak ñëpp ñu ngi leen di eh, sant ndax loolu encouragement la loolu soññee la eh, day wane ni dañuy gën a sasaat ndeyu daara yi ndax nag yéen ndeyu daara yi Daaru Salaam yéen woote kilifa yëpp bàyyi lañ doon def ñëw wuy si leen ah su ngeen fi jógee nag jàpp naa ni dangeen liggéey loo xam ne da ngeen wane ni seen tànk yooyu ñu jógoon mérutoo mérutoo na ko wala jar na ko kon ñi ngi leen di ñaanal di ñaan suñu borom dam defal def ndam ci bureau Daaru Salaam bii def ci ndam def ci lu kawe njort tey loolu suñ koy ñaanit dañ ci rafet njort lool ndax li weesu moo koy waral waaw mboolem ñi nga xam ne ñoom la soxna Manta eh, àndal liggéey bi soxna Ramasi si ñoom ak soxna soxna yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal ñun ñëpp wax dëgg ñu seen taxawaay rafet la ci daara naka jekk waaw ñun ñëpp mën nañ koo seere ni naka jekk am nañ taxawaay yu rafet ci daara lii nag su ci dolli koo eh, yaakaari daara dana gën a yokku te wax dëgg yaakaari daara yi Daaru Salaam gën naa yokk yaakaari daara yi Sénégal gën naa yokk am nañ ay gan yu baree bari yu jóge Touba it ñëw ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sëriñ Njoogu Mbàkke sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ak yeneen kilifa yi nga xam ne yëpp ñëw na sëriñ Jili sëriñ mbooleem kilifa yi daara ak sëriñ daara yi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ak kilifa gu mag goo xam ne danañ ko tudd moom it muy ku ñu xam ci daara muy suñu alaaji Mbàkke suñu alaaji Buso suñu ñu koy wax suñu alaaji Ndombe suñu alaaji Fallu moom it wax dëgg fu muy teew rek xamal ne alxuraan a ko tax a jóg moom it euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax teewaayam rëy na ci ñun lool xam naa kàddu yi kàddu sant la di sant sëriñ Abdoulahi Dia moom it euh, kenn ku ne xam na ni mu doolee la ndey daara ak nim leen di jàppale ak ni leen di dool eh, poussé loolu lépp moom it ñu ngi ko ci sant bu baax a baax kàdduy cant la rek yoo xam ni mënta matale ñëpp waaye xol bi moom matale na ñëpp kon ñi ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan sunu borom def ndam ci bureau bu bees bi ñu eh, samp tey ji ci njiital soxna maam Anta ak ñim ko seqal ñëpp sunu borom def ci ndam te wax dëgg lii ñu def tey jii kaamili alxuraan yi ñuy joxe. ay machines yi ñu joxe laltu yeeg mbooleem cadeau yi ñu fi joxe wane na seen engagement wane seen yéene wane seen bëgg-bëgg ah, wax dëgg ñun ah, sëñ daara yi day sun xel dal na sun xel dal na bu baax a baax gis nañ ni eh, mbaar mi wéetuñu ci liggéeyub alxuraan bi it wéetuñu ci yéen jigéen ñi yéen ak ñu ci yéen ak ngi sunu ginnaaw eh, te da a nekkoon sunu ginnaaw bañ nekkee donga dem ba nekk ay sëñ daara teewul ngeen jàpp ba léegi te te bàyyi loolu wax dëgg dalal na sunu xel bu baax a baax a baax yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxaw yal na ngeen am ndam ci lii ngeen di eh, taxawal tey jii kon eh, eh, kàddu yu tëj la rek ak ñaan di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoom la soxna Manta bokkal liggéey bi di organiser sëñ Balla ñoom ak sëñ sëñ Cheikhouna ak ñëpp rek waaw Eh, di ñaanit kilifa yi fi teew kenn ku nekk ñaan su ko defee ñu daal di tëj jataay bi eh, damay bàyyi sëriñ njóogu eh, sëriñ Njoogu Mbàkke Touba su ko defee mu daal di def ñaan gi